خير المدائح ما في سيد البشر يصاغ كالجوهر المنظوم والدرر لأنه خير من أبداه خالقنا وسر جملة موجود من الصور فاستجلب الفكر في أوصافه طربا كيما تجوز من الأمداح بالدرر محمد أحمد الأكوان قاطبة نام الهوان صحيح الوعد والخبر ركن أمين وحيد طاهر نمر حسن حسين وحيد ظاهر الخفر نور خليل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 سيدنا وشيخنا أحمد بن محمد السالمي التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله عن جميع المؤمنين tabarakallahu mbokki jullit yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad julli ci ay ñooñam ak i saxaabaam dellu si neen ci mbaaxu yàlla ci émission bu am solo bi nga xam ne tabarakallahu moo di zajrul qulub bi ñu war a firi waxtaane ko ñuy nuyu nag suñu mbokk techniciens yu baax yi nga xam ne ñoo taxawee liggéey bi wante itam di nuyu tabarakallahu ki nga xam ne moo jiitee mbooloo mi di président Mouhamed Mansour mbay tabaarakallaahu ñu ngi koy ñaanal yàlla lii nga xam ne jiite na ko te muy ndono li ëpp solo ci xadara bi te mooy la yonent bi waxoon ne innama bu'istu muallima mu jël xam-xam boobu nga xam ne mooy cëslaayu diine di cëslaayu tariqa bëgg ko tabaarakallaahu tas def ko mu di tarbiyaam yal na ko yàlla jàppale ci li nga xamante ni tabaarakallaahu euh, am na ko ci yéene ba defal ko ci sax lu sut njortam euh, mu mel ni ñu ngi woon ak yéen ci zajrul qulub ñu commencé woon téere bi ci halid dëhru in taara al guraabu yatibu wa jaa rasulul mawt baadu yanuubu muy premier euh, bayit biñ ci firi tey ñu bëgg a dellusiwaat ak yéen wante balaa ñuy ñëw ci bayitu ñaareel bi ñu fàttaliwaat rekk bayitu bayit bu njëkk ba nga xam ne sëriñ bi daf ko ubbee laaj nee na ndax jamono mën naa neex ci ki nga xam ne bijaaw feeñ na ci boppam ndax kooku mënati na teg loxo jongama nopp ko nam ko nobee woon ba mu koy soog a takk te boobu bijaawagul mën na dugg biir këram kër gi neex ko na mu ko neexee woon ca ba mu dee ndaw déedéet bëri na tey lu ndaw téye di ko bànneexoo waaye mag tegu ko muy dara lu tax ndax xalaat bàmmeel Cheikh Sidi Hadji Malick Sy nee na jullit bu ragal yàlla looloo war a nekk jikkoom nooy gën a magee rek tabaarakallaahu di gën a sori àdduna di gën a jege yàlla moo tax mu ne xëlit dëhru ndax jamono yatiibu dana mën a neex intaara bu fekkee naaw na alxuraabu kawar gu ñuul ga wa jaate dikk rasulul mawtu ndawal dee yanu bu di wuutu karabu gu ñuul googu baadu ca gannaaw demuk baaxoñ la mu ne araaka gis naa la nasiita ngay fàtte fàttelu al mawta dee wal mawtu te dee mawridun di rootuwaay teen la wala robine boo xam ne ñëpp a fay roote mbokk yi defe naa ne bi àdduna amee léegi ndox mësul manqué moo tax ñu ne yi am njariñ yépp yàlla da koo yombal yi ñàkk njariñ mu seeral ko ku ne xam na ne suukar xorom a ko ëpp njariñ moo tax xorom moo gën a yomb ku ne xam na ne sëriñ biy jàngale alquran moo ëppale professeur bi nga jël pour mu jàngal sa doom ci biir kër gi waaye professeur bi moom ngay ëpp loo fay lu tax ndax sëriñu alquran bi moo ëpp njariñ su ko yàlla yombalu loon bu ëllëgee dana am ñu ne yàlla suñu doom yi kat oustaz yi ñoo seeroon ba mënuñu leen jël pour ñu jàngal suñuy doom kon lay amul foofu téere alquran bii di kaamil moo gën a yomb ci téere yi pour bu ëllëgee kenn bañ a wax yàlla ne ko kaamil bi mënuma ci woon a jot ndax dafa cher ndox itam ku ne xam na ne ci ngay jàpp ci ngay sangu farata ci ngay dindi sobe kon nag ndox moomu bu ko yàlla yombaluloon woon kon tabaarakallaahu nit du mën a jaamu boroomam na mu ware suuf itam bu ko yàlla jafeloon kon tabaarakallaahu mën nañu wax ne eh, nit mën na wax ne yàlla aw ma fu ma jàppee aw ma fu ma sangoo farata aw ma fu ma tiime mais suuf yomb na lool <laughs> moo gën a yomb lépp mu ne nii tabaarakallaahu euh, euh, foo foo foo foo génn rek mën a am xeer woo tiime wala suuf soo tibb tiime ko ba mu des bitim réew bitim réew nag léeg-léeg nga génn di wër suuf soo tibb pour tiim mu jafe la waaye fii ci Afrique moom tabaarakallaahu euh, mais li ma bëgg a wax foofu rek mooy paanu ndox ak paanu essence ban moo gën a cher. paanu essence moo gën a cher lu tax parce que ndox moo ëpp njariñ ndox moom ku xëy sa xela nga ca robine ba wala sa xela nga ca teen ba ba nga xamante ni ñu nga dëkk ca kaw ga ku ci xëy rek sa xel mu nga ca teen ba pour rooti ndax kat xale yi war nañoo naan jur gi war nañoo naan dégg nga góor gi war naa jàpp te yooyu yëpp teen ba moo la koy jox kon nag ni nga xamante ni kër gu ne am nga yitte boo xëyee dem ca teen ba root fa ndox moo dugal ci sa biir kër Cheikh Sidi Hadji Malick si nee na dee noonu la mel ni ndox mel nga xam ne ñépp ko aajowoo nee na dee itam noonu la mel donte nit ñaa ngi koy daw mais ñépp ko aajowoo parce que fokk ñu dem àllaaxira te ci dee lañuy jaar pour dem àllaaxira jarul daw waja dañ ko wax ne ko innal mawt alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de gi ngeen di daw de nga de ne xaysuma takunu yudrikukumul mawt dañ ne fu ngeen mën ne de dana len dab waja di xelu di daw xel yu rëy ne bala ma de jàpp yàlla ne innal mawt alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mi ngeen di daw ba tax ngeen di xelu mo ngi len di kar ci kanam lol la Cheikh Sidi Hadji malik Sy di ci bayit bi ne araaka gis naa la na siital mawt ngay fàtte fàtte lu dee nee na wal mawtu te dee mawridun rootuwaay la robine la teen la fëlil kulli ñeel na képp nasibun ab cër min bahril mamaati ci géeju dee dee géej la nekkul sax teen ndax teen ba mën naa dëy gaaw a jeex waaw wante dee Cheikh Sidi Hadji Malick si nee na du dex neena géej la te daanaka géej wër àdduna te boo dee xool àdduna bi ñeenti cër la ñetti cër yëpp ndox la benn cër bi dongu moo ci waw doon suuf kon nag ndox moom nga xam ne mënuñu koo jeexal te kenn ku ne ci ñun am nga ca cër dee noonu la mel yàlla bu ko neexoon tukkal àdduna ci ndox kon nag ni ndox mel ci ñun wër ñu ci wàll gépp noonu lañu ñu dee wëree ci wàllu gépp moo tax alaaji Malik ne fëlil ku ñel na képp kenn ci ñun ñun ñiy dund nasibun ab cër min bahril mamaati ci géeju de mu ne kaay ma yombalal la ko ala boo yëgul ma yëgal la ne kullu mawludin képp ku ñu jur fala shakka sikk nekkul ci ne annahu ni ki moom moomu ñu jur yusallimuhu nee na dana ko nuyu shuubun dee yaadal xabibu yow soppe bile Cheikh Sidi Hadj Malick Si ki muy waxal daf ko jappé soppe bañ aduna wor ko motax muné ko bul woro demum ala kulli hal kenn ku ne dañ ñëw sa kër jox la lox te bu la nuyo fa nga nuyu ko motax muné ya zal habib yow soppe bile ndax ad diinu an nasiha diine ak la yebir la Cheikh Sidi Hadji malik sine wa iyyaka maa ngi lay moytandikuloo tadbiiran ab dañ kumpa fama huwa ndax déet dañ kumpa naafiun di lu am njariñ nee na dañ kumpa amul njariñ fama huwa naafiun wasallim na nga jébbal dénga nga al umura mbir yi ilallaahi jëme ko ci yàlla su ko defee te tuubu nga mën a tuub nee na pour nga mën a tuub na dellu ci yàlla fokk nga jébbal yàlla tabaarakallaahu mbir yi tabaarakallaahu mu ne alaa yëgul ma yëgal la ne kullu mawludin képp ku ñu jur nee na fala shakka sikku nekkul ci ne annahu niki moom yusallimuhu dana ko nuyu shuubun dee yaadal xabibu yow soppi bile mu ne alaa boo yëgul ma yëgal la ba tey ne ñii ne alaa waawee ñaar yépp boo ko ci firee baax na kullu mawluudin képp ku ñu jur wa in taala doonte yàgg na umruhu dundam ñi naan am na téeméeri at ñi naan jege na ko ñi naan téeméeri at yi teg na bu ci doon wa in taala umruhu mu ne sa yaduuhu dana ko woo bis daaci hulkatin aji woote ji ak alkande te moo di dee daaci hulkatin aji woote ji alkande hulka boobu alkande boobu dee li ci jublu kan mooy woote jëme ci dee mooy malakul mawt malakul nag am nañu ne mooy azrail mais azrail dañu wax ne rawaan la rawxaan la mais malaka mii jël ruux mi am nañu ne tuddul azrail malakul mawt rek la tudd malaaka mi jël ruux yi kon Azraïl ñu bari dañu wax ne ci wàllu lasraar rawxaan la waaw am na ñu d'accordul ne Azraïl moom mooy malakul mawt kon daal malakul mawt moom amul beneen tur bu dul malakul mawt mën nga ni Jabraïl mën nga ni Mikaïl mën nga ni Israfil waaye nag boo àggee ci Azraïl bàyyi ko fa neel malakul mawt ñeenti malaaka yi ñooy ñeenti malaaka yi nga xam ne Eh, tabaarakallaahu ñoo gën a fés ci yonent yi nga xam ne ay malaaka lañu yàlla di leen jox ay mission ñu jëm ci doomu aadama yi moo tax mu ne ala kullu mawludin wa in taala umruhu sa yadcuuhu dana ko woo bis daaci holkatin malakul mawt te bu ko wooyee fa yu yujibu dana ko wuyu kon nag léeg nga dégg ñu naan ah, moom mi dem de ñàkkul fayda ba dem ñun ñi fi toog itam du doole ju ñu am ba tax ñu toog fi kon ku fi toog yàlla la fi bàyyi Alaaji Malik loolu la bëgg a tabaarakallaahu firndeel ne ku ne ci ñun bis su la malakul mawtu soxlaa ci ndigalu yàlla da nga wuy ci nee na wa iyaaka maa ngi lay moyta moytandikuloo dañ kumpa wala setantal ñuy tuddee tadbiir setantal xam nga ñu bari dañuy am seeni projet waaw dégg nyubari eh, ñu bari aussi eh, dégg di jema set seet nu ñuy def ba fan waaw tabaarakallaahu pexe mu ne nit dana ci dugg pour rek nu mu yàggee ci kaw suuf lu ne nga bëgg caa dugg nee na di ca wut ay mën bu ca sori mën-mën yooyu bu ca sori waaw nee ndax fa huwa naafiun amul njariñ de waaw nee na boo bëggee noppalu wasallim na nga al umura mbir yi ilallahi ci yàlla su ko defee te tuubu loolu mooy tax nga mën a tuub nee na boo bëggee noppalu daal mooy ufawidu amri ilallah samay mbir yëpp jooyal naa ko ci yàlla du tee nag nga setantal setantal bu dëppook tawxiid wante nag bul jàpp rek ne ci say pexe la mbir di jage jage déedéet ndax yàlla nee na laa xawla déet pexe di sotti wala quwwata déet kàttan di mën a sottal dara illa billaahi lu dul ba pexe ma ak kàttantal danga nga ko wéer ci yàlla loolu la góor gi bëgg a wax mu ne kon nag setantal yi ngay def ci dund beeg mën-mën ya ngi cay dugal yépp pexe ya ngi cay dugal yépp nee na na nga ci def très attention soo bëggee noppalu daal joyalal say mbir lépp ci yàlla sax ci la xawla wala quwwata illa billah su ko defee loolu mooy tax nga mën a dellu ci sa boroom mu ne wa iyaaka maa ngi lay moytandikuloo tadbiiran nee na ak settantal gu ëpp ci sa mbiri àdduna ni muy doxe moo jaaree fii danaa am alal su ma jaaree fii mbir mi baax lu ne nga dugg ci fàtte sa boroom completement mbiru àllaaxira waxatoo ci dara toujours daal yaa ngi tëral ay projet sa xalaat toujours li ñuy wax naan xel koom la sa koom maanaam sa sa xalaat toujours yaa ngi ko jëmee rek ci lu la may àdduna lu la may alal mais jëmewoo ko ci lu la may yàlla moo tax yàlla di wax ne xel koom la mais koom gi ëpp xel di ko jox nit di ko ko setantalal mooy xel mi nga xamante ni mu ngi koy xalaat loo ci wàllu yàlla tawxiidam di yokk moo tax yàlla naan afala taaqiluun afala tafakkaruun xanaa du ngeen xalaat dégg nga afala yatadabbaruuna alquran xanaa du ñu settantal alquran kon tëdëbbur boobu yàlla bëggul jullit bi di ko xóotal ci wàllu àdduna li mu bëgg mooy mu xóotal ko ci wàllu yàlla du tee nag dana nekk xajaratun bi nii boo dee settantal ci wàllu yàlla dana la génneel loo jariñoo àllaaxira mais dana la génneel itam loo jariñoo ci àdduna moo tax mu ne wa iyaaka tadbiran fa ma huwa naafiun bu fekkee say xalaat ak say setantal ci àdduna rek nee na nga ko teg alaaji malik nee na fa ma huwa naafiun amul njariñ kon wasallim na nga jébbal al umura mbiri ilallahi ci yàlla su ko defee te tuubu nga mën a tuub kon tabaarakallahu mbokk yi ñu tegandi foofu itam suñu baaraam wara dik ak yéen tabaarakallaahu ci wa khayr wala taxtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabati al umuri taghib su ko defee tabaarakallaahu ñu koy def nonu rek ndànk-ndànk su ko defee nga xamné Cheikh Sidi haji Malick Sy ni mu woyee zajr zajr zajrul qulub danaka bayit bo jeur rek amna aya al qur'an ak ahadith yu bari yu mu lënkaloo ndax ñoom ñu dara lo xamne dañ ko sos ci diine ñaare luñu way rek hadith la wala muy aaya alquran kon tabarakallah ñu tegani fofu suñu baram ba tabarakallah alkhamis ji di ñëw sen mbok sen xarit sen soppi Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo nekkon ak yéen ci sen téré bu sen mam sen soppe Cheikh Sidi haji malik si di zajrul qulub wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. خير المدائح ما في سيد البشر يصاغ كالجوهر المنظوم والدرر لأنه خير من أبداه خالقنا وسر جملة موجود من الصور فاستجلب الفكر في أوصافه طربا كيما تجوز من الأمداح بالدرر محمد أحمد الأكوان قاطبة نام الهوان صحيح الوعد والخبر ركن أمين وحيد طاهر نمر حسن حسين وحيد ظاهر الخفر نور خليل حبيب مرتدى قمر